ganu Equivox TV ñëwaat euh, ci beneen euh, numéro euh, di dalal tey ki nga xamante ni moo jiite SNEIPS di Serigne Mouhamadul Lamine baara gay man noonu laa koy woowee parce que mooy turam tey nag moom la ñuy dalal fas yéene waxtaan ak moom ndax xam ngeen ni biñ ko tabbee ci bopp kër gi ba léegi mu ngi ci liggéey bi jëm ci xeex li nga xamante ni moo sonal la jël àddina di euh, mbas bi gis ngeen sax muy prêté wu ci exercice boobu di point Covid ñu ko ciy gis muy joxe li nga xam ne mooy euh, bilan bi ñuy xaar euh, bés bu ne looloo waral ba biñ ko tabbeeg léegi ñu fas yéene ànd ak moom ngir def le point ci liggéey bi nga xam ne dénk nañ ko ci kër gi di SNEIPS waaye xam ngeen ni. Mamadou Lamine Bara yemu rek ci loolu ndax xam nañ ko ci wàllu politique di militer fële ca Mbàkke bokk ci APR du ñàkk xëy na feeg ñu jeexal dina ñëw ah, ci actualité yu ñu nemmeeku jamono ji ci penc mi jëm na ci euh, poste premier ministre bi ñu war a indiwaat naka noonu violence nemmeeku ci local jëm ak yeneen yu ko du ñàkk xëy na dinañ ci ñëw waxaale sax ca Mbàkke taxawaay beeg yañ cay xaar kilifa gi am nañu mbégte dina dalal ci Equivox TV. Ousmane maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne internautes yi ñu ngi ñuy seetaan ci Equivox TV di la remercier ci opportunité bi ñu jox di nuyu également sa équipe technique bi nga àndat di nuyu sénégalais yëpp di jottali également nuyoo suñu kilifa monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr mais di la jottali également nuyu tout le personnel. du SNEIPS service national de l'éducation et de l'information pour la santé ak ñi nekk ci service bi à Dakar ak ñi nekk ci région yi les BREPS ak tout le personnel aussi du ministère de la santé et de l'action sociale. ñu ngi leen di nuyu bu baax am ah, di rafetlu tamit service communication bi ñu fi fekk ak yaatal bi rawatina Koura maa ngi gis mu ngi temps sama waa ji érage xam naa ni moom moom mooy sama caméra bu man bu mag bi mais maa ngi koy wax léegi biñ la tabeeg léegi booy def taxawaay ci ci liggéey bi loolu ñuy wax. waaw li ñuy njëkkee mooy remercier d'abord son excellence monsieur le président de la Sall ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñi am confiance ci ñun teg ñu ci boppu kuréel gi xam nga service national de l'éducation et de l'information pour la santé service bu am solo la ci ministère bi ñoo lu ñu naan décideurs publique yi teeloon nañ ko gis depuis les premières années de l'indépendance ñu créer ko nga xam ne service la boo xam ne rattaché au cabinet du ministre muy jàppale toutes les directions du ministère donc lépp loo xam ne dafay aju ci yeete ak yeetal population bi ñu naan ko éducation à la santé ñuy liggéey également ak les partenaires loolu la ñu dénk muy un service bu am solo parce que xam nga suñu réew yi doole ji bëriwul te léeg-léeg la demande sociale en termes de santé day jafe moo tax tamit en plus de gouvernement bi li muy investir ci infrastructure tabax ay hôpital dañu war a liggéey également parallèlement sur le volet de la communication et surtout de la prévention di yee nit ñi ci mesure d'hygiène yi ce il faut te Covid bi ñu jogee wane na ko encore loolu moo tax tey ñuy service boo xam ne macha allah ñi ngi ciy góorgóorlu moom ñëw fii également fekk fii un personnel expérimenté mais engagé yaa ngi tudd sànq soxna Koura la doyenne responsable équipe audiovisuelle bi moom mu am ay travailleurs sociaux am ay médecins am des éducateurs ñoo xam ne vraiment seen xel dafa màcc ci domaine bu ci nekk ñu ciy liggéey tey moo tax ñuy accompagner direction ministère bi yëpp tey ku ci soxla communication ak leneen waaye yeneen partenaire technique ministère bi ñu ci mel ni ay UNICEF muy OMS muy ay FINUAP ñoom aussi ci service bi la ñuy jaar pour di déployer ay programme d'activité yi ñuy dérouler loolu moo tax tey SNEIPS tey service la boo xam ne loolu ñu naan ci tubaab label la ci ministère bi te may profiter ci tamit di rendre hommage à tous les éminents directeurs qui m'ont précédé à la tête de ce service ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne yàlla def na génn nañu àdduna yàlla leen yàlla yërëm te yi njéggal ci ñoom encourager tamit personnel bi fi nekk nga xam ne en plus de ñooñu mu tudd am na yàlla numéro vert huit cent cinquante cinquante bi nga xam ne huit cent double zéro cinquante cinquante ñoom ñoo fi nekk di répondre question yi nga xam ne tey ci Sénégal yépp boo wootee ci numéro boobu da nga jot ay téléopérateur ay góor wala ay jigéen ñu jox la ay tontu orienté la ci feebar bi nga soxla feebar bépp boo xam ne ministère bi da koy jàngat rek tey opérateur yooyu am nañ ay éléments d'information bu nit ki wootee dinañ ko laaj fan la wootee ci Sénégal orienté ko gis nga bi Covid bi ñëwee liggéey bu am solo bi ñu ci def ñoom tamit fii la ñu nekk ci service bi. bien sûr euh, maa ngi koy wax léegi c'est important ni nga campé la décor wax ñu euh, mission yi nga xam moom la ñu assigné la CNEPS ak liggéey bi mu ci def xam naa dinañ ci yow ci ak sensibilisation parce que. Mm. yëpp dafay dugg ci wàllu prévention mu mel ni. Covid dafa ñëw rek yéen ci ñu bëri. Mm. jàngat yu mag yi. ci taxawaay bi xëy na loolu nag ñëw mais déjà bi nga egsee. Mm-hmm. ba fi ñu ci toll. lan nga jàpp ni xëy na ci nga nekk ci liggéey. loo xamante ni dafay bokkaale ci mission bi dégg. waaw xam nga bu ñu la nommé nag par euh, décret président service dafa am loolu ñu naan euh, décret portant répartition des services donc ñun suñu service li nga xam ne moom la ñu gën a yor mooy loolu ma la wax mooy volet. communication bi prévention bi accompagnement bi ak accompagner les autres directions du ministère ah bi ma ñëwee nag euh, gis naa ne kër gi quand même ci biir Covid bi laa ñëw sax naam booba xaw na wàññeeku waaye fekk nañ fi tamit ay jafe-jafe te ñi fi nekkoon ñëpp xam nga service état moom lépp du yembandoo mais góor góor góorlu lii chantier bi ñu njëkk a song surtout mooy le chantier et une unité audiovisuelle bi yaa ngi tudd sànq soxna Koura ak personnel bi muy àndat muy ay jeunes yoo xam ne macha allah xarañ lool ci audiovisuel waaye jàpp naa ne war nañ leen gën a accompagner pour que ñu mën a renouveler le le le parc audiovisuel muy caméraman yeeg yëpp matériel bi pour ñu gën leen a jàppale parce que ba fi mu toll nii service bi euh, année yi passé ak contrainte budgétaire yi tax na que quand même matériel audiovisuel bi xaw na màggat naam ñi ngi am njàppale ministre ministre pour que ñu gën a góorgóorlu ñu gën ko yokk parce que xam nga matériel audiovisuel dafa cher ay caméra rek vingt deux millions trente millions dafa cher mais cher gi teewul nag ñu wut ko tamit moo tax ñu ngi ci am accompagnement monsieur le ministre am na lu ñu ci tàmbali. pour que ñu fexew ba nga xam ne matériel en tout cas bu unité audiovisuelle bi danañ ko yeesal. ñu am ay caméra yu bees mën a enregistrer mën a déplacer wu en tout cas logistique boo xam ne service bi non seulement dana war di mën a produire fii ci service bi waaye war nañu mën a déplacer pour def de la production ci yeneen yi. tey bu ñuy xeex feebar bu mel ne tey eh, bilharziose wala leneen nga xam ne fële lañ am ci fii ndax yi am mm. équipe bu SNEIPS war nañ mën a déplacé wu ànd ak médecin chef de région yi ak spécialistes yi dem produire une émission sur cette maladie là et xool naka lañ koy mën a partager loolu ci chantier yi la ñi ngi aménager tamit studio bi pour que ñu mën di recevoir fii des fois ay kilifa yoo xam ne seen xel day màcc ci benn jàngoro ñu ñëw fi waxtaane ko loolu tamit bokk na ci chantier yi ñu def ñu ngi fi xalaat également benn salle digitale xam nga léegi communication bi c'est surtout sur le net jeunes yi ak ñëpp tey sax mag ñi ñi ngi ci seeni portable donc daanaka waxtu woo xam ne dañ daan toog ci salon bi di seetaan télé bëreetul lool parce que yitte yi dafa bëri société publique yi fi nekk ak parapublique yi nga xam ne dans le domaine de loolu ñu naan tuddee RSE war nañ ci mën a xool ñoom it naka lañ mën a accompagner le ministère de la santé davantage parce que tey Covid bi ñu génn wane nañu encore comment les économies sont fragiles aujourd'hui et surtout que la question de la réponse médicale ce n'est pas seulement le ministère de la santé le ministère de la santé ñoo war a nekk le bras technique mais on a besoin aussi de s'appuyer sur d'autres ministères tey le ministère de la femme am na programme yoo xam ne dañ ko war a développer ak ñoom le ministère de la jeunesse démb rek laa jógee Saly ci benn atelier maa ngi remercier ma du projet promotion des jeunes Koura Thiaw qui a bien voulu nous associer à un atelier boo xam ne ñoom it dañu soxla l'expertise du du CNEPS à travers le ministère de la jeunesse pour que ñu mën a développer yenn yenn programme yi donc voilà autant de chantiers boole naa ci tamit au plan institutionnel suñu chantier bi ñu yegsee fii mm. euh, un audit organisationnel du service à travers le BOM le bureau organisation et méthode nga xam ne c'est l'organe dédié du gouvernement pour faire un travail d'accompagnement des services de l'État dans le cadre de la réforme les services du BOM sont actuellement au niveau du SNEPS ñu ngi déglu agent yi pour faire l'audit organisationnel nga xam ne dafa war a déboucher sur un autre appareil une, organisation du service une réorganisation du service avec des fiches de poste pour que véritablement ñu xam les compétences yi ñuy jot fan lañ leen war a mën a affecté loolu également c'est un chantier sur lequel on a reçu l'autorisation du ministre de le de le faire. c'est important autant de chantier yoo xam te ne ñu la ci xaar kuy déglu day am envie xaar leen ci ci ci ci objectif yi. mais mais finalement pour yegg fan suñu wax objectif yi lii yëpp buñ ko boole ci ay instruments partenariat yi ngeen nar a renouer chantier yi ngeen xotti pour pour in fine su CNEPS euh, euh, taxawee ci yëpp nga wax fan lay découlé en terme d'objectif fi muy découlé mooy boo defee audit organisationnel li ma mujj wax par exemple avec le BOM dañ lay daalal jox na ñoom ay expert lañ seen xel dafa màcc ci management public hmm. des services publics bu ñu paree dañ lay proposer benn organigramme ne la sa service bi lii la laaj comme organigramme lii la laaj comme ay compétence proposer le benn propos d'arrêté su soumettre ko à l'autorisation du ministre mu signé ko ñu xam ne maintenant kuy ñëw personnel SNEIPS organigramme bi lii la service yi la am per compétence yi la laaj loolu foofu lay loolu lay débouché boo jëlee côté audiovisuel bi ñu yàlla dimbalee ak accompagnement ministre bi ak organes yi nga xam ne moom la ñu am fii projet yi ñu am ci ministère bi ba ñu jàppale ñu ba ñu am les moyens qu'il foofu ba ñu am matériel audiovisuel performant dañoo war a mën nag produire maintenant ay film documentaire ak des émissions interactives yoo xam ne war nañ ko mën a réaliser fii ñu mën a am suñuy support yu bopp parce que tey boo jëlee ay services yu mel ne soleil dañoo am seen imprimerie di tirer ñun tey Synapse yu ci bëri dañ koy externaliser war nañu mën a liggéey ba am suñu unité de production boo xam ne ëllëg support ñu ministère bi di soxla ak yeneen direction yi muy ay bâche muy ay t-shirt muy ay ay spot yu ci bëri sax ñun ñoo koy def soxna kuram yi publicité yi ngay dégg yëpp c'est sa voix qui porte qu'elle prête donc loolu foofu la ñu bëgg également unité audiovisuelle complète qui produit pour le ministère et l'ensemble des directions du ministère waaw nga xam ne tey boo ministre génnee def benn activité mm-hmm. bu duggaatee ci otom sax balaa muy àgg service am gis gis jot ci portable am le le le produit final ñu mën ko partager avec l'ensemble des décideurs au niveau déconcentré de l'État ñun SNEIPS war nañu mën a am base de données boo xam ne tey danañ ci am les numéros parce que tey WhatsApp ñëpp koy utiliser ak YouTube war nañu mën a am base de données boo xam ne danañ ci am l'ensemble des gouverneurs du Sénégal l'ensemble de préfets du Sénégal l'ensemble des sous-préfets l'ensemble de médecins chefs de région war nañ leen mën a am ci suñu base de données am nañu ko déjà les contacts mais liggéey ko ba nga xam ne danañ am ba outil de communication qui nous permet à chaque fois que nous, le ministère de la Santé doit communiquer avec les médecins chefs de région que ministre bi def communication bi ñu mën ko jot nit ñëpp jot ko mais à chaque fois que benn docteur liggéey ci ab maladie ba génne ci ab communication liggéey ci war nañ ci mën a def un film documentaire boo xam ne war nañ ko mën a partager que tous les Sénégalais jot ko jusqu'au niveau le plus élevé jusqu'à la diaspora ba ci Covid bi li ñu ci jot a dund jafe-jafe yooyu waroon nañu effectivement depuis fi ñu fi duggee ak fi ñu ci ak mooy dégagé euh, instruments yi ñu utiliser pour xeex ko fi ci yegg loolu xëy na wala liggéey nañ ci liggéey bu am solo boo xoolee quand même ci communiqué yi nga xam ne moom la ministère bi di génne ma ciy félicité mon collègue directeur Mamadou Ndiaye def ci liggéey bu am solo la direction de la prévention mais avec la direction de la lutte contre la maladie nga xam ne tey jii boo jëlee CUS bi mhm. nga xam ne ñoo yore woon organisation secours bi tey avec le SAMU Sénégal da ci am expertise tey SAMU boo xoolee base de données ak lal yi fu ñu mën di nekk dañu amoon ay chiffres yoo xam ne tableau di surveiller sénégalais bu ci nekk fu feebar xam nañ hôpital bu nekk ñaata lal la fa nekk ñaata lal ñoo am oxygène ñaata lal ñoo nécessité réanimation mhm. loolu c'est un outil boo xam ne en terme de gestion base de données nañu ko loolu tamit ministère bi vraiment expertise bu am solo la ci am li ci des nag mooy ñu améliorer ko gën ko peaufiner ba nga xam ne dana mën a pare. Hmm. waaye daal il faut que ñu liggéey ba nga xam ne service bi tey ñu ngi améliorer tamit ci projet yi comme ni wax salle de conférence bi pour que chaque quinze jours ñu ngi liggéey ak le réseau des agents. des journalistes en santé. ñooñu ñoom Alassane Cissé que je salue au passage tey journalistes yooyu dañu di woo di leen utiliser ñuy ñëw fii chaque quinze jours ñu def benn conférence bu mag au CNEPS boo xam ne sa porte sur un domaine de la santé sur le sida ëllëg ñu def sur le paludisme on vous invite yéen le journalistes les surtout le desk santé ñu ñëw fii ñu produire ay santé waxtaan ci bu ñu fi jógee ñu capturer ko nag partager ko à travers les réseaux hmm. à notre unité bi c'est important beneen tamit bu mu bëggoon ñu ñëw ci mooy volet éducation bi insisté nga ci yu bëri maanaam souvent dañuy gis sax Covid bi li mu sonaloon dañ doon wax ay ay ay taxawaay yoo xam ay comportement yu doon favoriser mbir yi. takkal masque takkuma laalal gel laalu raxas sa loxo raxasuma am ñu dem ba jàpp ne sax xëy mag ñee tële ci loolu parce que dem ba am yenn habitude yu ñu soppi léegi dañuy delluwaat ci gune yi ci école loolu ban taxawaay la ci CNEPS def ngir que sensibilisation beeg Euh, information beeg ni ñu ci liggéey ak ministère pour loolu sax ci gune yi mu doon benn effectivement def nañ ci lu am solo mooy li ma a wax boo xalaatee ak docteur Mamadou la direction de la prévention dañu daan ñëw fii ñu xalaat spot yi naka lañ ko war a defee ñoom kuréel yi ñoo ci liggéey defar ko am na spot yoo xam ne audio lay doon nga koy dégg rek am na spot yoo xam ne euh, euh, visuel lay nekk day am éléments yi ñu togg ko liggéey nañ ci ak waa UNICEF nga xam ne bu ñu defee requêtes yi ñun ñoo koy proposé ñu accompagner ñoom génne financement yi ñu liggéey ci maintenant nag ak les partenaires les relais communautaires ñu ngi déroulé tey ak un programme ak ñoom wax naa la sànq le réseau des journalistes en santé yàlla a le réseau également des acteurs communautaires nga xam ne c'est des milliers d'acteurs communautaires ñoom ñooy def visite à domicile y ñoom Baytir Samb nga xam ne organisation la boo xam ne dafa am ay démembrement dans l' ensemble département départements du Sénégal ñooñu la ñuy liggéeyee bu ñu génnee ñun sport yi ñoom ñu def seen programme indi ko ñu étudier ko valider ko UNICEF joxe le financement qu'il faut ñuy dérouler ak ñoom ñun nag suñu service SNEIPS ñooy assurer la supervision di dem di xool est-ce que ñoom programme yi ñu santé yi ñu wax ñu ngi koy dérouler exactement ak lan la ci population yi xalaat. li c'est par rapport ak les collectivités territoriales xam naa ne moo ñu permettre transition bi ñu duggaale ci ban rapport ci effectivement xam nga santé daa fait partie des neuf domaines de compétence comme l'éducation nationale loolu tamit dañ ciy liggéey ak les collectivités territoriales locales nga xam ne mairie yi ak président de conseil départemental yi ñu ngi toll actuellement ci préparer élection yi mais teewul tey ci def communes yu Sénégal yëpp bu ñuy dérouler activité fenn dañ koy dérouler si c'est dans la région avec le médecin chef de région le médecin chef de région bu ñu nekk ñun SNEIPS am nañ fa agent bu ñu tuddee BREPS le bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé am au niveau des départements de EPS agents de euh, de promotion de santé yi. peut-être li ma non des na des na parce que am nga l'engagement citoyen c'est d'abord au niveau des citoyens et les citoyens au niveau déconcentré c'est les mairies qui les administrent il faut que mairie également davantage collaborer avec les services de santé parce que léeg-léeg dans le cadre de la diligence des ressources day am ay retard waaye loolu nag il faut que ñu am ko maire yëpp nag amuñu le même engagement citoyen mm-hmm. moo tax ci élection locale yi tamit dañ leen war ñaax encore ñu gën a mm-hmm. dugal seen loxo ci santé am bëri na nag maire yu ciy góorgóorlu di tabax ay poste de santé di uti ay équipement di jàppale également agent de santé en termes de recrutement en termes de motivation mm-hmm. loolu yëpp mais c'est un domaine effectivement boo xam ne y a du travail encore à faire. à faire moom laa wax est-ce que loolu souvent moo moom quand même c'est c'est transversal boo xoolee le volet bi ñu jël bàjjenu gox yi dans tout le Sénégal gouvernement loolu tamit rek vision président Macky Sall ni ñu ko defee woon ci éducation recruter ay volontaires bàjjenu gox yi tamit ay travail volontaire la ñuy def. Mm-hmm. nga xam ne ñoom ñooy dugg ci kër yi. di topp soxna yi ko wanu lor ñu xool boo xam ne est-ce que yaa ngi respecté sa calendrier de vaccination mm-hmm. est-ce que yaa ngi respecté say visite médicale euh, prénatale et cetera loolu c'est le travail citoyen moo lay wan rek te loolu nag bàjjenu gox tey ñun ñii liggéey nañu ak am un programme mm-hmm. je que de vingt xaw ma trente millions moom la ñuy dérouler ak ñoom nga xam ne ñooñ ñooy def activité de euh, sensibilisation yi ku ci nekk dañ lay jox registre saa soo xëyee dañ xam ñaata kër nga visité wala mm-hmm. nag visite à bàjjenu gox bi day ñëw toog soxna yi ñu woo leen waxtaan ak ñoom ci ëtt bi laaj leen kan moo fi wanu lor est-ce que yow am nga carnet vaccination yóbbu la boo vacciné wu ñu yóbbu la nga dem vacciné wu donc ça c'est un travail voilà donc c'est ça qu'on appelle la santé communautaire et ça c'est le SNEIPS qui le porte avec les bàjjenu gox avec l'UNICEF avec l'OMS déedéet ah. jeexagul jeexagul pourtant que mi ngi am benn cas ci àdduna bi rek ba léegi pandémie mi ngi fi. Eh. boo gisee tey docteur du Ndiaye ba léegi le communiqué du jour bi ñuy def à dix heures ñi ngi koy def. te tey quand même liggéeyaat nañ ci ba nga xam ne dañ koy envoyé par SMS. Mm-hmm. tey man soo yeewoo six heures sept heures balaa ngay génn ñi nekk ci plateforme bi mm-hmm. envoyé nañ leen message nga xool. xam ñaata kaa la am fan la moo lay wax na la jàngoro ji mi ngi fi. bëri te Mamadou Ndiaye chaque fois buy teel bi na nit ñi takk seen masque. masque nag balaa muy baax day muur bakkan moo bëri ah et cetera ay wone macha allah nag ñi ngi ñaan euh, kilifa diine yi ñi nga xam ne yàlla am nañ ci ñi ñaan nañ ci. Mm. gouvernement bi góorgóorlu na davantage. pour que ñu yokk tamit dispositif médical bi. d'accord ba tey yàlla dimbali ñu wàññeeku na bu baax. ñu ngi ñaanal nga songee woon sa bi ngay bi ngay bu baax euh, yooyu yëpp ñëw mais mais local yi violence moom violence moom kenn fu ñu toll dañu koy condamner et vraiment j'encourage beaucoup action yi nga xam ne la société civile ñoo ko jël pour demander à ce que tous les leaders des partis ñu signent les pactes de non-violence. parce que c'est très important. ah j'ai vu quand même que y a amis surtout. Euh, de l'antisystème qui ne veulent pas encore avancer mais jàpp naa ne quand la violence kenn mënul yëngu politique di encourager violence ñun ñëpp nous avons ñoo bokk Sénégal. suñu famille yëpp tey Sénégal tout le monde bokk la ñu vraiment je lance encore un appel à tout le monde pour que ñu dem ci échéance yi il y aura de l'adversité politique c'est tout normal. mais nag yéen non. non waruñu waruñu provoquer il peut y avoir nag quelques éléments comme on dit qui font dans le zèle l'excès de zèle mais ce qui est important est que quand ku xam président Macky Sall xam ne quand même ce qu'il a toujours prôné. C'est le sens républicain de l'État. C'est pas pour rien que notre parti s'appelle Alliance pour la République. Donc, et la République, c'est d'abord le respect de la loi, la non-violence. alors alors Mbacke élection euh, jàpp ngeen ni. waaw ñu ngi foofu ñu ngi waaj bu baax ñu ngi waaj bu baax euh, moi je suis sur la liste majoritaire au niveau de la commune de Mbacke ak mon frère Kaloba je suis cinquième sur la liste Kalo est de liste on a la parité qui fait que. mais je suis engagé dans la liste et ñëpp gis nañ le travail d'animation politique que je faisais il a aussi je suis sur la liste départementale aussi avec mon frère Matar qui a été investi En tout cas, nous travaillons sur le terrain pour que la liste Benno Bokoyakar gagne le département de Mbaké, l'ensemble des communes, le département et surtout la commune de Mbaké. Mm. waaye nag la yomb na dalee na. dalee na loolu la baara loolu moo jëm baara dolli nee na da ngeen waaw ñoom loolu la ñuy wax waaye xam nga comme ni wolof di wax jëm jël la ja di bàkku moom jóge fa di bàkku mugul en tout cas def nañu ay investiture mm. metti na nag parce que investiture moom ku ko wax da nga wax choisir. am na ñoo xam ne jëluñu leen te waroon nañ leen dugal ci liste yi ak jur na ay mécontentement mais loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey pour resserrer les rangs man boo gisee avant élection yi di ñëw j'étais sur le terrain de l'animation politique de l'accompagnement des militants bi ñu paree liste yi tamit j'ai lancé un appel à tout le monde pour que ñu ànd ñu ñëpp pour que la coalition Benno Bokk Yaakaar et Macky Sall gagne le département de Mbacké waaye nag ku ne la day yomb moom. commune bi rek am nañu treize listes. ci département bi am nañu six listes concurrentes waaye nag jàpp naa ne quand même la meilleure offre politique pour waa Mbàkke xalaatee rek xam ne woteel Benno Bokk Yaakaar moo gën quand même

rétropédalage boobu lañ comprendre. waa xam nga le président de la république comme ni ñu koy waxee moom moo c'est la clé de voûte des institutions. c'est lui qui détient également majoritairement la confiance des Sénégalais moom la ñu fal à cinquante huit pour cent Sénégalais na ko déroulé. kon nag kooku en fonction de ni muy déroulé mooy dem ba à des moments il apprécie c'est vrai que y a un moment bi ñu génnee ci législative jàppoon na moom ne supprimer le poste de premier ministre. Après, il a essayé avec le jeu des institutions en fonction de la productivité. Aujourd'hui, nous allons vers des élections locales. Vous Guinée, de préparer législative. Le Sénégal sort du pandémie. À travers ça, le président en termes de niveau d'information. mais dañ ne dafay seet boppam diggante fii diggante 2019 ak léegi deux deux ans et demi la la nga ne woon dina naa ko indiwaat ko ñu ne dafay dafay dafay. dafay kii dafay seet boppam 70, le poste de Premier ministre était oui, on le sait. Oui, on le sait. Diouf l'a fait revenir oui, en 81. loolu yëpp tamit dafay amaat loolu yëpp c'est le président de la République qui apprécie. Mm. En tout cas, l'État ñun suñu régime bi ñu nekk nii c'est un régime présidentiel qui peut fonctionner avec ou sans le Premier ministre. Le président a pris la décision de supprimer le Premier ministre. Aujourd'hui, il a repris la décision de remettre le poste de Premier ministre. nous nous en prenons acte et nous l'accompagnons. Euh, profil bi coow li bëri na ci ah. waaw profil nangam yoo ko xalaat waaw. ban profil waay ça c' est le domaine réservé du président. on le sait moo tax tuddalu ma la tudd. ça c' est sûr mais nag profil bi waaw koo ci xalaat un technocrate la ñuy wax wala un politique la coalition Benno Bokk Yaakaar mais surtout de l'Alliance pour la République oui. nous avons quand même de grandes personnalités qui ont le parcours dans l'État qui ont le niveau qui ont l'ancrage social maintenant nag ce qui va rester c' est la confiance du président la République. mais bu ngeen sañoon du leen cette confiance là il va la placer en qui hmm. ça il y a que lui seul sait mais moi je sais que hmm. celui le dernier premier ministre qu'on a eu Mohamed Dionne a réalisé quand même d'excellentes choses à la tête de la primature il a reconduire ko du doon luy. il a hmm. est-ce qu'il sera reconduit est-ce que le président va porter son choix sur une autre personnalité. Hmm. ça que le président de la qui le sait. Hmm. en tout cas nous nous sommes des responsables engagés derrière lui nous sommes confiants. waaw ah, d'accord il fera le bon choix. et que ce choix-là également. va déterminer, va réussir le, ce, ce, travail de coordination de l'équipe gouvernementale. Mm. Parce qu'un poste de Premier ministre aussi, c'est important dans un pays. Je pense que l'a bien apprécié dans ce est que, est-ce que bu koy bu buy falaale dafay jëlaale euh, en contre yenn paramètres yi ci local yi jëm déggoon nga Mahmoud Saleh waxoon ni euh, ce débat là ci candidature troisième candidature bi ci fi fii ak 2024 ci résultat yi lañ ciy xam coow li ñuy dégg également ci du ko def dina ko def ak yooyu est-ce que jàpp nga ni ah, ci yooyu yëpp ñu teg ci penc mi choix bii muy euh, war a amal ci ki muy tànn peut-être dina régler waale yooyu waa ça peut pas ne pas impacter parce que local yi ñu jëm en tout cas la décision est actée par le président de la République en conseil des ministres le texte de loi va aller à l'Assemblée nationale après c'est certainement ça va être voté par l'Assemblée maintenant nag la décision de matérialiser ça à travers la nomination, ça c'est le calendrier que seul le président de la République détermine et connaît. Mais ce que je sais est que daal jàpp naa ne c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir parce que man sincèrement je suis pour le premier ministre le maintien du premier ministre parce que un gouvernement aussi il a besoin d'avoir un chef oui. mais un premier ministre aussi on en a besoin des fois également pour le volet politique parce que c'est le premier ministre qui impulse l'action gouvernementale. C'est le Premier ministre qui est le premier fusible des fois quand le président est attaqué, <laughs> parce que nous sommes dans l'arène politique aussi. Oui. Le président de la République sera régulièrement attaqué parce que c'est un acteur politique. Certes, nous avons l'appareil politique qui est là, le parti qui réagit, la structure des cadres, nous avons notre coalition, mais les ministres aussi, des fois, ils ont besoin d'avoir un capitaine. avant d'arriver au grand capitaine mmh. qui est le président Rabdi c'est pourquoi la fonction de premier ministre c'est assez important d'accord sànq nga wax aussi coowal dina def troisième mandat wala du ko def finalement lan nga jàpp ni euh, parce que am nañu njort ni xëy na muy tànn mën nañu de facto xalaat ni xëy na mooy régler la question du Dauphinat est-ce que vous wala man li ma xalaat mooy politique moom c'est un c'est un agenda Il faut aller sur un objectif, l'atteindre, l'atteindre et aller sur un autre. Actuellement, le défi que nous avons, c'est le défi des élections locales. Il faut que notre coalition s'organise pour gagner le maximum d'électes de collectivités territoriales, de communes et de conseils de département. ci Djogé, dans cinq mois, au mois de juillet, on s'achemine vers l'élection, les élections législatives. Oui. Il faut que à ces élections aussi, la coalition Bernobokayakar remporte encore une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour accompagner notre gouvernement maintenant vers 2024. Et eh. voilà. Et 2024. Si on gagne maintenant notre majorité à l'Assemblée ah nationale, <laughs> mais on va vers 2024. Comment, Comment À partir de 2024 maintenant, hum. la constitution est là, c'est la référence. Le président de la République peut candidater ou il ne peut pas candidater. Hum. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Ah, quand le Conseil constitutionnel.

il a déposé sa candidature le conseil constitutionnel a validé. dafa am loo fàtte aussi aller en campagne. Euh, non da l'esprit du juin te président Macky Sall daanaka baatu 23 juin moo ko joxe. non et l'esprit du 23 juin mooy 17 morts yi amoon du am. pour régler ko ci li ñu doon 15 points yi wax ni day wàññi mandat c'est ça l'esprit. attends cest bu ñu ci loolu ak waxam. waruñoo dem ba conseil constitutionnel. l'esprit du 23 juin comme vous dites c'était le respect de notre Mais le 23 juin, nous étions devant l'Assemblée. On a manifesté. Mais quand la décision du Conseil constitutionnel est tombée, Macky Sall, Moussa Niass, Ousmane Taron paix à leur âme, ils ont dit nous allons en campagne. Ils sont allés en campagne. Il ne faut pas que les Sénégalais oublient ça aussi. Ils sont allés en campagne contre Ablaï waaw bul fàttali ne bi mu faloo et nous l'avons battu à travers les yeux. mais bul fàttali ne bi mu faloo dafa ne loolu épisode boobu ñu dundoon la mu jeex. tax mu indi nag euh, révision constitution non je suis d'accord de pour que mu yem rek ci ñaari mandat je suis d'accord xam nga y a une constitution qui est là mais il y a des juristes et d'éminents constitutionnalistes ki ont dit que Macky Sall peut se présenter en 2024. Quand il euh, faut pas l'oublier aussi. Comme ça veut dire que nous pouvons Parce non, que les juristes de Maître Abdoulaye Wade nous courent aussi. Mais je suis d'accord. On est allé en, en, en élection en 2020. Okay. En, en 2012. Non, non, non, non, je ne pense pas. Mais j'ai dit moi, je ne peux pas préjuger de ce qui arrivera en Parce que je ne suis même pas sûr que parce que suñu bakkan yi lu ñu ko bëgg bëgg yàlla moo yor yëpp. Ah, non je suis d'accord mais dama ne la quand on est dans une république aussi Ousmane une république c'est les lois. faut pas qu'on l'oublie aussi c'est pas une république c'est pas la rue c'est les lois qui décident et c'est les organes que le peuple s'est donné et l'organe habilité pour décider d'une candidature à l'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. Il ne faut pas qu'on l'oublie. 2011, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit qu'Ablaï Wade peut être candidat. Et nous sommes allés en élection contre lui et on l'a battu en 2012. Donc en 2024, aussi, si Macky Sall prend la décision, parce que la décision de candidater, elle est d'abord individuelle. En 2024, si Macky Sall décide de candidater, c'est le Conseil constitutionnel qui va répondre. dire que sa candidature de Macky Sall est valable ou elle n'est pas irrecevable ou elle est irrecevable. À ce stade vous pensez que ni su candidaté woon en 2024 que forcément am na argument yu koy permettre. candidature bi jàll non non ci sa ci conviction. non j'ai dit man sama conviction sama conviction amul solo parce que li am solo mooy la décision la que le conseil constitutionnel prendra. décision qui prévaut. il faut qu'on l'accepte aussi on est dans une république soit Mais en 2024, je le rappelle, comme en 2012, le seul organe habilité à décider, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, la seule personne aussi euh, qui est habilitée à déposer sa candidature, c'est Macky Sall. C'est lui qui va apprécier en 2024. D'accord, leer C'est comme euh, ça. Alors, jeexalee ak li ma la waxoon sànq. mais nag mais sur ces questions-là, on n'acceptera pas maintenant de comme comment je peux l'appeler du terrorisme médiatique ou politique. 2012, on a vécu ce terrorisme-là. Et malgré ça, quand Macky Sall a décidé de candidater, il nous a dit, écoutez, quand le Conseil a validé la candidature d'Ablaouad, il a dit, je vais en campagne. Rappelez-vous, il est parti en campagne. Il a dit, je vais en campagne. Il est parti en campagne. Et il a gagné. Absolument. Si, le, si Macky dépose sa, prend la décision de déposer sa candidature, si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Macky on va aller en élection. yéen ñëpp da ngeen ànd ceux qui ne voudront pas aller en élection ils trouveront la loi devant eux. d' accord euh, épisode boobu dañ koy tëj ba fii ñu yegg 2024 yàlla nañu ko fekkee incha allah sa euh, première euh, sa premier exercice bi ngay joxe point Covid nan la la cour a waajalee woon ak bi ñuy demee ndax amoon nga. track parce que ñi fa jaar ñëpp <laughs> bàyyi woon nañ fa ay way ah macha allah ñu ngi fàttaliku waaw. côté boobu nag hmm. dañuy sant yàlla xam nga man aussi nag j'ai fait un peu la communication je me suis peu familiarisé aux caméras avant d'arriver au CNEPS. mais et j'ai la deuxième chance c'est que j'ai trouvé au CNEPS. des spécialistes de com. ki qui qui font tout. Vous avez vu la préparation de bien cette sûr, émission. Ce sont eux qui vous ont reçu, qui m'ont installé bien. et qui m'ont rassuré qu'il faut y aller. Parce que moi aussi, je suis avec des collaborateurs, je ne fais rien sans leur aval. Ah, parce que ce qui arrive ici demain, c'est eux qui sont les premiers responsables. Ah, donc vraiment, machallah, je remercie le ministre de m'avoir mis au Mais Tito Honda, de trouver des non quand même xam nga nous les politiques moom on s'adapte hein <laughs> Macky Sall moo ñu jàngal loolu tamit quoi il faut savoir s'adapter ouais. mais à ma décharge aussi peut-être j'ai des j'ai des dispositions personnelles qui ont fait que je me suis familiarisé à de la communication parce que c'est ce que j'ai fait aussi dans ma deuxième en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant di kontaan ci ñu nga dalalee du ñàkk xëy na nga am message waaye laata boobu dama bëggoon tamit nga wax ma parce que souvent dama ci ànd ak ñi may ñi may dalal lan moo la gën a marqué ci bi nga duggee ci politique ak léegi loo xam xëy na soo xalaatee euh, voilà dina am fenn fu mu la yóbbu loo bëgg a ak ñun. c'est surtout le changement des some politiques quand ils changent de falu rek. fàtte ña nga daan àndal hmm. ñu la wooyee dootuñu la jot changé am ay xarit yu bees ça vraiment je l'ai découvert entre deux mille douze et deux mille vingt quand on m'a nommé j'ai vu quand même des gens qui dès qu'ils accèdent de visage malgré les rappels Ousmane quand tu le di on dit que parce que da bëgg a wax président lu la neex mais regarde le président Macky Sall à chaque fois les rappels à l'humilité qu'il lance à nous les responsables de la paix bàyyi leen dugg ci oto 4x4 yi rek def tête tente voilà pendant la campagne arrêtez vos véhicules marchez allez parler au Sénégal c'est sens de l'humilité C'est ça que nous devons avoir, Ousmane. Moi, nous mon bureau là, je ne suis même pas dans le formalisme en termes d'audience. C'est parce qu'une seule personne des ne peut si je fais des résultats au SNEPS, je le dois à ces agents-là qui sont avec moi et qui portent le service. Voilà. Ils sont là pendant des années bien avant moi. Je quitterai ce service certains en laissant certains ici. Ouais. C'est ça qui En tout cas, nous les gërëm di la sant. Je te remercie Ousmane, je remercie toute l'équipe qui vous accompagne et je salue également tous les citoyens sénégalais qui auront la possibilité de viser, visionner l'émission. Oui. Si j'ai dit un mot déplacé, maa ngi ci jégalu di le remercier encore di beral nag également des remerciements particuliers à toute l'équipe du SNEPS. Oui. mais également à mon à mon ministre et patron Abdoulaye Diouf Sarr au président de la aussi une mention spéciale aux populations du département de Mbacké. Hmm. pensant qu'ils vont voter majoritairement pour la coalition <laughs> Benno Bokk Yaakaar. ñu ngi koy xaar bien sûr en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Lamine euh, Bara Gaye la lañu àndaloon may fàttali ne moom moo jiite SNEIPS bi ñu dalal tey ñu doon waxtaan ak moom ci fonction yu yees yi ñu ko dénk liggéey bi bi mu fi yegsee ak léegi. Euh, ci lan la ne dégg ngeen ko ci chantier yi nga xamante ne euh, xotti na ko am solo lool nu ngi koy xaar nag euh, ci résultat yooyu nga xamante ne jukki na ko ànd nag ak collaborateur am maa ngi nuyu Koura parce que moom laa ciy tey damaa gis mu tëkku sama caméraman bi nga xamante ne daanaka moom mooy ndaanaan ci wàllu yi ne ko man ba ma koy téye téyewoo ko te am na baat bu ko tuddal ba léegi fireegu ko ma xam ne kon Koura macha allah ci jàmbaar yooyu la bokk waaye du ma bett ndax boo ne RTS moom daanaka ñun ñëpp ñoom lañ doon bàyyi xel ba tey ñu sóobu euh, ci euh, liggéey bi nga xamante ne moom mooy liggéey yi xibaar ak techniciens yi nga xam ñoo ci liggéey kon ñu ngi nuyu euh, personnel bi ñu fekk ak yaatal bi ñu yaatal am na solo ñu koy gërëm également moom Mamadou Lamine Bara Gaye di leen wax ne dinañ dajawaat incha allah beneen jamono ci beneen numéro seen émission ganu Equivox gërëm technicien yi ñu ci àndaloon.